di gërëm Baye Mbaye tamit taxawaay bi nga xam ne nii ci ñetti at yi passé mi ngi koy taxaw bu baax dem accueillir leen xam nga teeru gan dafa baax ci diine waxantuma la ak teeru ko ci biir géej gi loolu day dalal xel kon nag ñu ngi la ciy gërëm leen sant di massawu coono bi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa daf ne as-safaru qit'atun min al-'azab tukki daa métti daanaka eh, ab mbugal la booy xalaat te tukki jël say bagage teg nekk ci yoon wi ba agsi fi ne nii mën nañ fay jóge mais man naa am feeg 17 heures duñ dalagul bay noppalu kon nag jërëjëf responsable bureau gi Ibrahima Sow ñu ngi lay gërëm ngay ànd ko ñëpp nag xam naa ci kanam bu ngeen di wax da nga leen tudd di wax rek ne ah damaa jàpp ne ah bàyyi moom yàlla fay na ndax la mu wax ne alawtul fii mooy dem na noonu laa ko mën a misaale dem na ci géej gi waaye lam ci doon wut rek ndimbalul sunu boroom ak kasaare diinam ak jox ndaw ñi misaal nam doxole woon ku ko doxale ci sa àdduna nga doxale ko ci sa wàllu diine nga doxale ko ci sa wàllu njaboot da nga am résultat ndax ñaan gim ñaanoon nga dana ci jox ndaw ñi misaal loolu dafa am solo Kaolack nag nekk dëkk boo xam ne nii dafa nekk dëkk boo xam ne nii yàllaa ko barkeel ci lépp tarixa yi nga xam ne nii fii lañ juddoo daanaka mën nga ne yëpp la muy yëpp fii lañ juddoo walla li ko taxawal kenn ya ko taxawal fii la juddoo kon nag bu ñu amee ku mel ne ah Baye Niass jële ko ci waajuram Alaaji Abdoulaye ñu jël kawlax mu nekk seen base fu ñu jógee ci àdduna bi Kaolack la ñuy dem fu ñu ñibbi Kaolack la ñuy dem bàyyi di signé Kaolack loolu doy na rek pour ko ñun Kaolack waa bu nekk am fierté ci loolu man de je suis fier et très fier nekk meeru dëkk boobu kon nag liñ ñu war a xalaat rek mooy ñii di ñëw ñu gën leen a tatagal gën leen a jàppale looloo tax baay Mbaye année bii dañ ko waajaloon bu baax ñu defal leen fi ay tànt yoo xam ne danañ ci mën a jënd li ñu soxla duñ dugg ci dëkk bi waaye yaakaar naa ak maire ak yow war nañoo mën a taxawaat ba nga xam ne nii ñoom bu ñuy ñëw dana am ñu fi jiitu indi ay bagage yay ñor foofu te di fa yàqu ndax mas naa faa dem di fa yàqu ñëpp xam nañ ne ay jën ak ay ay loo xam ne nii du fa jar dara ma ngay jar fi ay ay ay ay ay ay milliers ñu fexe ñëw fi ñu jàppale leen bu leen ay chambre de froid yooyu yëpp loolu nag li tubaab di wax ne demain se prépare aujourd'hui buñ xaar ba tey rek ñu pare ji nañ tegaat commission boo xam ne ànd ak mairie bi ànd ak sa maire ànd ak développement chambre de commerce ak ñëpp ñu fexe ba nga xam ne nii rien que déwén dana nekk loo xam ne nii Sénégal gépp danañ ko seet di gën a gouvernement bi rek ne ko jamono lu mel nii waroon na am tey te yaakaar naa am na armée bi xëy na am na ay hélicoptère fexe leen ñu teeru leen ñu ñu ñu yabe leen fa ñu jógee ci comme ni nga xam ne ni ay pèlerin yi dem Màkka noonu lañ leen di euh, yabee ndax ñun kat yonent bi ñun ñëpp waaye nag ñun lii mooy suñu suñu premier aj noonu laa ko mën a tuddee noonu laa ko mën a tuddee kenn mënu ko wecceeg aju Màkka nag waaye dama ne ñi nga xam ne nii mënuñoo dem li ma ni sa temps ilay sabilan ñi ko mënul te mën a ñëw fii ziare baay danañ am euh, danañ am yàq yoolu aj kon nag ñu jàppale leen ba sécurité dana leer alhamdulilah benn fitna mu ci am waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne da ngay ñaan yàlla waaye sabablu nañ sabablu fexe ba nga xam ne nii mooy état bi am muy hélicoptère mooy bi état bi am ci ay bëdet mooy yi état bi am ci ay gilet ci secours lépp ñu gën ko yokk ndax waxtu wu ne njaboot gaa ngi gën a yokk te benn yoon rek bu leen ko defalee rek dana tax ay nit gën di ñëw gën di ñëw fii ñu defaat fi tamit ay exposition yoo xam ne nii dana tax Kaolack euh, Kaolack waay wala Sénégal xam ni ñu indi dañuy dégg île rek nit ñi yaakaar ne benn île la wala ñaari île la te yaakaar naa man na ay centaines et des centaines da ngeen di dajaloo ñu xam lépp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant presse bi di seen taxawaay di sant ñi nga xam ne ñoo leen di accueillir fii di leen joxu dund di leen jox ñu ndékki jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi